asalaamaaleykum euh, mbokki senegal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission dem seen émission démb nag tey mi ngi jëm ci royaume bu mag boobu muy royaume du Saloum di fa waxtaanee doom joo xam ne jàmbaar la woon lool ñu koy wax Sémou jimit Diouf nga xam ne mi ngi juddu 1833 ci dëkk bu ñuy wax Tanabar ca boori Ndofane di doom ci Gori juuf ak euh, princesse Gelawar Djimit Samba Siñaan Njaay moom xam ngeen moo jiite woon clan boobu ñuy wax Kéwé Biigé nga xam ne aussi jàng na alxuraan ci wetu Maba Jaxu Ba moom euh, Sémou jëmit Diouf moom mu nga xam ne euh, wax dëgg yàlla buur Saalum la woon bu nekkoon jàmbaar tey jii moom lañ leen bëgg a xamaleel. Sémou Djimit Gelawaar la juddoo Tàndabaar juddoo Tandabari tamit ba mu demee ci juróom-ñeenti at uti fukk lañ ko jëlee Tandabari yóbbu ko Nioro mu dem jàngi alxuraan Tamsir Baba Jaxu Ba moo ko dalal alxuraan ca Nioro semo buñ doon euh, jàng boo weesee ni alowa guddi arxemes boo seddi ajuma dëpp càmmoñam bi daa jël dëpp ci biir di déglu di ko def di ko def ba mu jaaxal Serigne Daara ba Serigne bi wax ko Maba Maba ko bu ko defatee nag ma woo mu am benn bés alxames ba sedi ajuma se mu def nam doon def eh, jël nopp càmmoñ bi dëpp ko ci suuf di déglu Maba tiim ko ba mu yàgg mu daal di ree mu ne sëriñ daara bi kii dina falu junj nga mi nekk biir suuf lay lay lay dinañ ko wongal ay loola ba mu paase sembu ba mu toogee bo masoor bi nga xamee ne mi ngi laata ko ñoro di ñib si tamsir ma ba amoon na doom buñ doon wax sayer mati ba mu bindal ko ay lay alxuraan yu bari def ko ci kële def ci ndox pour seer naan ko mu ñëw jum jox ko semu jimit semu jimit di naan di naan di naan ba mu des tuuti maba ne nii ne xay xakkate dal di nangu kële la ca des mu ko oo seer doomam ne ko gis nga kii buur la ñay xare la bés boo taseeg moom ci ci tooli xare doo am victoire parce que li ma la bindaloon moo ko naan ba mu def tuuti li des nga semu jimit korom ngeen jàmbaaram mu ngi ko njëkka wone fa ñuy wax Pate Badiane booba Lat Joor moo jëyee ko Kajoor ñëw ci buur seen Kumba Ndoofeen mu mag pour mu dalal ko Kumba Ndoofeen bañ ne ko dama def accord ak tubaab bi du ma trahir mu jàll ñëw Ñooro Maba de ne ko balaa may wax ak yow dara da ngay wat sa njañ lii ma tudd Lat Joor nangu ñu toyal ñu toyal boobam bi wat ko mu tudde ko Silmaxa Joob bam fa toogee bo am doole la ne mu songeen benn bu ñuy wax ñaani ba mu songee ñaani amu fa ndam bala ba bayo la fa fekk mooy buur ba ñu xëy di fetel tata bi ba heures onze ñu wax ko bala ba bayo bala ba bayo bam leen fa fekkee mbaxanaam rek la dindi ci boppam yelew ko muy ay yemb yamb yi topp fas yi di dugg seen bakkan yi di di di rey nit ñu daaw ñii daaw daanu baabaloo ñii daaw ñib si ñooro te lañ ko xalamale ne ñaani bañ na ko leen tooñ lii moo indi xalam yi ñaani ba loola passé euh, Semou Djimil xare na Paate Mbadiane bi nga xamee ne tubaab yi topp si nañ la ñooro ñu nga xeexe fa ñuy wax xur wi ñuy wax Paate Mbadiane semu def na fa njàmbaar koo xam ne moom la ñu ko def dañoo baase dañoo baare gappaax baare njaayeen ak ay arme yu luur sembu bam ñëwee faagaagal na fa juróom-ñaari soldat deuxième barrage mu fekk fa fukki soldat ak juróom-ñaar mu faagaagal leen dugg si Nioro ñu jàkkaarloog tubaab yi am na capitaine bu ñu doon wax Kene Laprade fa lañ ko jàmme ci tànk xeex ba metti lool waa Nioro am ndam ak sama tubaab yi toog ba timis ñu jël ay lamp takk ko ci kaw garab ñu ne tubaab yi dañuy fanaanal bu subaa ñu tubaab ya daw la joor ba mu fa jógee di ñibbi siin la jaar kër moo indi xeexi Maba Jaxu ak buur Sine Kumba Ndoofeen fa ñuy wax fanaan la ñu xeexi te dégg foofa la Maba des semu dañu wax ne semu demu doon naaw duru ñu ngi wax naaw duru rek waaye fi ñuy wax kaw came fa la ñu fexe xeex bu métti semu boycotté bañ na du dem fa lañ reye góor gi saaboob ndaw saagoño ndaw biram bajaan bu mbajaaneem bolob yële ndaw bu ndukumaan fa la des ku lim juum bari na ña fa des bari nañu semu boycotté rek bañ na du dem léeg-léeg mu génne ci géejaanam bi rek ne eh, loxo bi ci bopp bi a cam allah ko bari jëf de jam nañ ko dee kii mu ja mu nga dëkkoon liku siyaan ñu jam ko mu ne a ah, cam alwaan ne ngi jam lañ ko nag waa kër lat menge dinañ ko sobe boo déggee ñuy wax ñangeen lat menge alwaan ñanga tax moom lañ jam ndaw duru waa uf jaabum waa Njaayeen waa Saacem waa Njuufeen ñoo ko xeetile bu yóbbu ko Lat Mingué faj jam yi moom benn ku sant ñang bu amee Lat Mingué kookaa tax waaye ñoom ñëpp wàllu ko si yàlla semu ba nga xamee ne boykati naan na nawduru demul de sayer gàñe na buur Saalum gi daal de wax dëgg yàlla mu toog ba ca suba sax ca gannaaw suba sax ñu ne nañ dem kawoon jékkali nag la fa des ñi tuub wala ñu rey ñi ñu jàpp leen jàpp c'est moo nga jañel de euh, tuuri kawoon yi tuuri kawoon yi wax ak këli kawoon tuur bi ñuy wax euh, odaaf mama yu xoox le ñi coro tubaab on jooɓ makka o mboguma makka kawon lamboor lat mege jelen maam taxaro ngolum mbelo ba kumba jigéen xel kom ñaxabaan gajaay ngooj padaxul raxul padaxul la tuddoon ak nju ngooj ñii ñoo seen armée dugg biir kuyong yore ay fas yu wax ay fas yu weex ak seen armes yu weex tàll seen jaasi yi melex Mabad euh, Seer daal di di répétal ñoo ba fi ñuy wax daaf foofu lañ tabax hôtel yi bi ñuy wax euh, Ali Ali armée bi baare leen Baye Demba War Sall ne ko Seer mu ne ko naam mu ne ko gis nga ñu teseel du ñu nit ay rab lañu kenn rek moo ci doomu aadama borom fas bu jeeñ ngi sol mantu bu xonq coy jaaseem baa mel ni safar ndax xam nga kooku mooy mu ne ko déedéet mu ne ko kooku mooy moo mujj bi moo moo moo yoroon commandement ba ba nga xamee ne fas yi suusu nañu ñu ñu rocci seen i jaasi utal fas yi yi deltu gannaaw di saw seen tànk yi bàyyi dama waasal ne ko na ñibbi eh, Lat Joor mu ne ko mu ne ko na Kajoor sayeer demal ñibbi kii Semou Djimi Laté moo jiite xare bi mu na loo ko dara xare bu Semou Djimi tax taxaw nga taxaw fa doo am ndam Semou xare na ku am na ndam xare na sange cikat am na ndam xare na pecamaak am na ndam xare na mandeker jegaan digganteem ak ngoloñ booba lasaye ñoow rey lingeer Kumba Ndaga Mbodj coofak rey gewel buñ doon wax Biram Selu Njaay ñu répétal uti ñu ngay ñu ngay attaqué la grand Kumba Saate àndoon ak Semu Jimet ak Janko Kuta Njaay bu Jokkul ñooñu ay ay doomi buur lañu du ñu gel nag waaye ay doomi buur lañu ñooñu ànd ak Semu ñu woñi seer ba fi ñuy wax Maka Kawoon Ngoreem ca Tabaga fa la tàggatoog seer seer mer ñi bi mu nga uti nga ba mu demee Banjul mu nga dal fa ñu wax buur fut fa ko feebar dale mu génn àddina euh, man maa ngi tudd Thialy Faye cosaanoo xewoon xewoon royaume démocratique la buur bi dañ ko indiwoon woon mu ñëw jiite ñu di ñu atte atte boo xam ne dafa ci yoon booba amuloon ne buur mooy wax ni faralal kii buur fat noonu amul soo nekkulee ci yoon yoon yoon tegu sa ko da nga xamee ne eh, si mu jimit mi tax ñuy wax tey ba mu juróo Tandabar dem jàngi Nioro ca almaami Maba Jaxu fa lay jàngee alxuraan nekk fa ak Sayer Mati Sayer Mati bi wëlbatiku ñëw xeex si ko bi tubaab bi ñëwee bi ne la Prade ca xare Palij Bajal Sémou Djimit def na jàppale leen bañ am fa ndam Sémou Djimit xeex na xeex yu bëri dafa yéex a falu waaye depuis buur Saalum Sadio Ka Mbodj xeex boo xam ne ab kaw da nga koy xeex sëñ bi am na sax te su su su demee am ndam xeex bi ñuy wax ni Salmon Faye bii ca la ànd ànd na ca waaye booba Sadio Ka Mbodj magu gëneel ma nga doon buur moom nekkagul buur waaye xeex na sax. bu saalum sëñ nag ca la ca xare defe naa xare xare xare sayir mati bi muy xeex ak euh, Gédéel Mbodj góor Saalum Gédéel foofu la xare jeex Saalum nguur Saalum euh, sama jibët nguuram amul xeex amul xare fa la xare jeexee nguuram jeex xare ba xare nag ba mu nekkul buur xare na xare yu jëm mais ci nguuram nag amul xare moom xare moom nguuram yëpp jàmm boobu signé nañ traité de paix avec le ak buur ak le colon ak le colon alors finalement rek ñu installé wu chef de canton waaw yooyu boo tax dañ ko wooyee ndar bëgg ko faye loolu loolu rek impôt bi soo ko laal tax nga laal ko Bangoor jeex na aussi Bangoor jeex na waaye Buur Saalum semu daal euh, jàmbaar la woon boo xam ne jàngoon na alxuraan jàng ni ñuy yoree réew jàng Eh, am eh, bëgg bëgg Saalum c'est un boobu ñuy wax Valdiodio Ndiaye ba mu ci réew mi tuddee ko le mu jimit ndax eh, taxawaayam ci réew ci ci Saalum ak ni mu bëggee woon Saalum ak ni mu Saalum ba jàmm am Saalum définitivement définitivement. ba Saloum si mooy indi Saloum booba xeex ba tey fa la xare jeex alhamdulilah. rafetlu lii ngeen def muy ñëw jël si suñu yaay ji di seeti semu Djimit direct ndax semu Djimit moom moo jur Koddu Kumba mi nga xamee ne moom moo ko jur tey ñoom ñaar mook magam ñoo fi des seeti Semou jimit yuy dund lii nag ngeen def rafet na trop parce que cosaan la boo xamante ne nii dañ ko war a dekkal pour ñu sukkandeku ci mun a defaraat suñu société njarka nag di semu jimit comme niñ ko waxee wax dëgg yàlla histoire kenn mënu koo jeexal gaynde la woon koo xamante ni ñay xare la woon jàmbaar gi woon ci moom newuloon ci kenn boole koog itam ceddo la woon te ceddo mooy nationaliste ceddo mooy ki nga xamee ne mooy borom dignité ndax semu jimit moom kenn ci mbooleem buur yi nga xamee ne ñoo doon dem conseil colonial diverses impôts moom kenn dong moo mos dem gouverneur yi Ndar recevoir ko mu won ko ne ko indi naa lempo Saalum wante duma la ko jox wëñeeku ak loxo neen Saalum dañ koy xaaj ci digg bi nga jël moitié yóbbu ko France moo wëñeeku ak moitié bi joxe ko waa Saalum conseil ko gouverneur euh, d'alors nangu loolu ba mu demee France rendre compte ca lañ ne mbooleem kuy jël impo war nga am en contre contrepartie remise kon bu ñu yeboo ne képp kuy feeku remise ci senegal yàlla ak suñ maam buur Saloum Sène mu jibil moo ko waral. Njarka de jàmbaar lañ ko xamee woon gaynde la woon borom xam-xam la woon jàmbaari góor ñi la woon daal lu nekk am na lu bari def na ko fi. bëgg nañ ko wax sax waaye kenn mënu koo wax ndax Saalum gépp a bokk te ñu waxee bu yàggee ah xol yi dinañ xaw a jaxasoo ndax ñun ñëpp benn lañ jàmbur nekku fi ñoo bokk ndey ak baay seenu nag jàmbaari góor ñi la woon wax dëgg yàlla lu def na ko fi yàggut ci nguur waaye na xare na bee tubaarkàlla yàlla xam doy na yàggut nag ci nguur at la am ci nguur juddoom ba mu juddoo xeej ak bal moom la judduwaale moom la dank ci loxoom moom la ganeyaale àddina ba ko waajur yi seetee gis ko booba dindi booba lañ ko jël denc ko fa ñu ko war a denc mu nekk bi nekk bi nekk bi nekk bi ba yàlla bàyyi ko fi ba mu ci wara a dem tool xare nag ñu door ko ko defaral ñawal ko ko jox ko mu takk kenn mos da dégg semu bal dugg na ko mos da dégg semu diwa ko dàq jox na ko gannaaw xare bu nekk xare yu bari nag gaal na ko bari yow gis teg nga ko ba gis nga ko kan semu <laughs> semu jimit waaw bi muy gaañu boobu juddoo ko <laughs> booba suma taaw yaay sax ñëwagul moom moom yan ñan ñoo di ay doomam fii ci Saloum. kan Semu. Semu waaw. Semu di doom Semu daal. Mhm. amoon na Maawa Coro. amoon na Gori Coro. amoon na Bakar Coro. amoon na Ngenar Coro. amoon na Kodu Kumba. i dégg. amoon na Yacine Kouré amoon na ku biraan ku ñuy wax biraan Samba amoon na ko amoon na ku ñu doon wax Ablaye ab Ablaye Fatim waaye kooku nag moom lébu la woon yaroo wu fi waaw loolu de laa xam ci njabootam sama njabootut amoon mu nga ca guerre yi euh, Pathé Badiane bi guerre yi Maba Jaxu la woon mais sa mujj mit bokkoon na ci troupe bi nga xam ne ñoom ñoo doon euh, xeex foofu parce que temps boobu mu ngi woon ci armée bi am na loo xam ne sax jot na ko def bi muy jàng alxuraan am na benn façon boo xam ne noonu la doon tëddee am na ñu ko gis dal di wax dem ba ci Maba ne ko xale bi jóge Saalum de ñi muy tëddee nii daf ñu jaaxal mu ne leen bu guddi jotatee bu fekkee ne tëdd na bay nelaw ngeen ooma bi Maba ñëwee ba def ne leen kii bàyyi leen ko mu ngi déglu junjungee ca kawoon kii dina dégg daali mooy kii dina dooni buur ma Maba Jaxu moo njëkk a xam ne sama jimit bi dina dooni buur ah donc sama jimit n'était pas n'importe qui nit ku baax loon woon ku dëggu la woon koo xam ne kii xamoon na lim doon il assumé demoon na boobu les dañ ko ragaloon bugguñu woon dara ne sama ji pour mu nekk euh, buur Saloum mais de par sa bravoure sa naissance il s'est imposé dañ naroon avant sama jimit ah Bamba Seydi lañ waroon a introniser comme reine sama jimit nag ku def Bamba Seydi buur ma dagg bopp sama jimit s'est imposé si la nekkee buur Saalum tubaab yi ragal ko parce que bëgg-bëgg réewam hmm, bëgg-bëgg cosaanam moo taxoon ñu bëgg ko euh, déporté mooy li sama wax léegi mais ko il a cabré sur la table d'honneur à Saint-Louis loolu yëpp pour wan tubaab bi ne faalewuma leen. ci garab gii ñuy wax géejaan nga xam ne mooy garab gi nga xam ne fi la sa mujj mi defoon penc lu war a mot ñaar fukki at sa mujj bi mu fi nekkee moom moo ne woon buur Saalum waaye nag avant muy doon buur Saalum dafa ne woon Bumi Lagem Bumi Lagem moom mooy euh, vice roi maanaam ki topp ci buur bi. léegi moom mu ngi juddu 1833 ci dëkk bu ñuy wax Tandabar Tandabar mu ngi ci weti Ndofane yaayam mu ngi tuddoon Jimit Samba Singane Ndiaye papaam tuddoon Goriwal njéemé juuf mu bokkoon ci famille Gelwaar bu mag ci branche bu ñuy wax branche Kewe Bigué Kewe Bigué moo meññ euh, famille Gelwaar yi bi nga xam ne fa la Sémou Djimit euh, bokk Sémou jimit bii nag jañeel bii mu newoon fii moom moo newoon pencam. penc bii nag lu ne def na ko fi sa mujj mit jàng na arxuraan mu ngi jàngee arxuraan ci Maba Jaxu ba mu jógee ci Maba Jaxu ci la ko Buur Saalum Gédel Mbooj proposé pour mu ñëw nekk Bumi Lagem mu nekk Bumi Lagem nekk fii ba bi Buur Saalum Gédel Mbooj génnee àdduna en 1895 mu mujj ko wuutu ci xilaafa bi remplacé ko nekk Buur euh, Saalum def fa ñetti at mais avant muy def ñetti at def na fukki at ak juróom yoo xam ne daf ko nekk Bumi te ci fukki at ak juróom yooyu daanaka xeex bu ci nekk moom xeex na ko fi sa mujj mit xeex na ci xeexu pate Badiane bi sa mujj mit xeex na ci xeexi alkaali Kunda bi sa mujj xeex na ci xeexi cikat bi sa mujj mit xeex na ci xeexi naw duru bi sa mujj mit aussi dem na ba euh, ak salmon dem na aussi ba xeex ak euh, Sayer Matiba léegi sa mujj bi boobu buur bu mag boobu nag mu nekk buur boo xam ne aussi dañ ko war di sargal fexe ba nga xam ne xale yi nga xam ne ñu ngi jàng ci Saalum ñu war a xam figure historique yi parce que ku mel nii bu demee ba waa ministère de la culture de la communication jël tableau bii nii dal di ko fi def def ko patrimoine historique di wax ci sa mujj mit c'est parce que kooku nit ku mag la woon nit ku màgg nag. dañ ko war a màggal te dañu war a góorgóorlu di waxtaan ci suñ cosaan yi ba nit ñi xam mag ñu njëkk yi nga xam ne fii lañ ne woon mbirum sa mujj mi nag wax ba jeexal te waxuloo Waal Joojo Njaay parce que Waal Joojo Njaay sëtam la te fexe na ba camp militaire bi ñu tuddee ko camp Semu Jimit kuñ dem bañ tuddee camp nag am na loo xam ne def nga ko ci biir euh, Saalum wax naa ko léegi jàngoon na arxuraan waaye nag xeexkat bu mag la woon am na loo xam ne sax waxuma ko ci élément francais bi mais sa mujj demoon na ba tubaab yi yóbbu ko Foundiougne dem di koy jéem a euh, déporté biñ ko dugalee ci bato bi taal bato bi bato bi tàkkut ñoom ñoo taxaw ne ko mais nu mu demee nii mu ne leen man njarka parce que njarka lañ ko doon dippee mooy surnom bi man njarka fas buy daw ci biir géej attanuma donc sa mujj mi def na lool parce que dafa amoon ay pouvoir mystique dafa newoon nit koo xam ne newuloon nit yi kese waaw njarka ci boppam euh, mooy lëm maanaam euh, pël yi ñoom ñoo ko tuddee woon njarga njarga mooy lëm boo xoolee garab dafay am genre pax yu ne ci biir pax yooyu munuñ ko dëpp munuñ ko juutal léegi boo ko juutalee ndox mi ne ci biir day tuur léegi nag dañ bëggoon misaal wane ne sëmu ji mi newul nit ku ñuy benn comme nit ku ñuy kuñ dul benn nag moo tax ñu tuddee ko njarka séeréer yi sax dañ ko doon wax eh, sëmu jimit mit borom reef kaan am na ñu wax ne borom reefaan mais du reefaan reef kaan la ci séeréer mooy kenn du ko topp maanaam Euh, grandeur boo xam ne kenn du ko dab kenn du ko joxoñ loolu moo indi sa mujj borom reef ka an mais du reef an parce que am na dëkk bu ñuy wax euh, reef an pour lever équivoque boobu léegi sa mujj mit aussi dafa newoon nit koo xam ne euh, ku bugg xamoon ko la rek ku buggoon mbokk la parce que ba mu faloo la jël benn cousin directam bu ñuy wax Diène Koumba Ndiaye dal di ko introniser buur buur Joonik léegi ci wàllu boppam aussi euh, sa mujjimit boobu am na leneen loo xam ne def na ko loo xam ne nit ñi war nañ ci wax parce que bi bu tubaab yi nee fii dañ doon jël impôt yi di koy fay tubaab yi mu taxaw ne moom jamono jiñ toll fi mu ne nii impôt Saalum dootuma nangu waa Saalum liggéey ko yëpp rek ñu jox ko ay tubaab léegi wax tubaab yi ne da ngeen di jël mocce ma jël mocce bi jox ko waa Saalum yi parce que ñoom ñoom moom alal boobu defar ci Saalum ci la tubaab bi demee ba xam ne kii nii euh, bañkat la mu commencé nag di indi ristourne moo tax tey chef de village bu fayu ristourne ak chef de canton bu fayu ristourne mbaa nga fayu remise war nga koo gërëmee sëmbu jimit que man euh, suñu maami ceddo yi ak fu ñu mën a dëkk ci senegal dama jàpp ne man suma maam lañu parce que Samba Lawbe mi doon xeex fii ci kawoon ak Makoddu di baay ak doom seen maam bu ñuy wax njoogu jàmbal moo may suma maamu pël bu déggul wolof ngol-ngol dafa ñëwoon rek di leen ñaanal keroog bi ñuy dem dànk yi 1549 fekk jolof daf ñu not ñun ñëpp ci géen woon. ñu <laughs> bari sax dañ may wax naan ma dañ doon yóbbu suuf siin di yóbbu xorom saalum di yóbbu wëteen ak yu ne daal eh, parce que galak boobu ñun ñëpp daan nañ ko yóbbu parce que booba jolof empire la alors donc moo tax dëkk bi ma dëkk di ngool ngol aussi histoire lu ne am na fa parce que doomu taawu taawu Amari Ngoone Sobel Masamba Takko foofu lañ ko boobee Lat aussi victoire bi gën a rëy am ko ci kaw tubaab bi ngol-ngol la ko amee le 26 décembre 1862 après sax ci la tubaab yi faagaagal kajoor gépp ba ñëpp bàyyi Lat Joor parce que dañ ni kii ku ko topp dinañ jeex ca looro tubaab yi du ñu bind lu yàq seen deru réew am nañu sikk su ne mais bëgg nañu seen patrie ñun nag voilà ce qui nous réew mi kenn ku ne sa bopp rek nga bëggal mais réew mi jaralu la dee kii il était prêt à donner sa vie pour sa patrie loolu mooy mooy citoyen te citoyen boobu pour ñu am ko il faut que ñu dellu ci valeur yi mënuñu am fenn fu ñu jaar ba réussir Sénégal ci muy domaine économique muy bépp domaine même jàng mi nii jàngal sax doo jàng parce que lekke géemuñu jàmbur taxut a taxut a rek pourquoi pas ñuy jàng ci école yi sunu lakk yow gone gu judd ba am juróom-benni at nga xam ne boo woo ñaari xale boole leen wool sax ñett nga jox leen cent ka leen mag danaan maay jël li tool sédd ñaari gone yi ñu tolloole kooku amul mathématique yor aw làkkam dem ba namp ko ci weenu ndeyam dem ba mën a ba war ba xam lépp nga ni ko non non léegi nag kaay ma jox la xam-xam ci làkk koo xam ne xamoo fu mu mais moo tax niveau bi te jàng tubaab man bañu ma ko mais jàng tubaab laa nag seen émission démb ci jàmbaar jooju di Sémou Djimit Diouf nga xam ne tey camp bu mag boobu di camp militaire bi ci kawlax moom la ñu ko tuddee muy jàmbaar ñuy nuyu nag euh, waa Saloum yëpp di nuyu buur Saloum ya fa nekk euh, parce que xëy na ñaari buur Saloum ñoo fa nekk waaye amul benn problème ndax ñoom ay bokk lañu te doo ci wéet kenn mu wax ca keneen ka dara lu ñaaw parce que benn famille lañu lu ci waay di wax rek na seet li nga xam ni mooy rafet di ñaw di defar ñu di ko wax parce que nag quand même ñooñu ko tanee ñun waa Kajoor ak waa Bawol ak waa Waalo ndax ñoom foofu moom nguur ga wax dëgg yàlla dara nekkatu fa waaye tey ci club xam sa bopp nag ñu ci nuyu suñu xarit Thierno Korea nekk ci Côte d'Ivoire ak suñu beneen mbokk bu ñuy wax Maysa Gueye nga xam ni moom atelier ba ca Côte d'Ivoire ma ngi ko dëkkam bii mu dëkk ci Sénégal di ñu di leen ñaanal yal na yàlla defal leen jàmm ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Hadji Tall Ngor Ngor ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen jàmbaar ci réew mi jërë ngeen jëf.